masawu yéem ci mboolem koo xam ne rek loru nga ci xéewal gi nga xam ne suñ borom moo ko wàcce ci kaw suuf muy taw bi waaye rawatina nag ñi dëkk Touba sëriñ bi nee nag képp ku fi dëkk rek te ndox mi laar laal sa kër walla mu laal sa alal wala lu mu mën a doon rek sëriñ bi wax na ne mi ngi lay masawu ci loolu te di ko ànd ak yow. loolaa waral nag sëriñ bi. ci yërmandeem jaatu wax na liggéey bii xam na ne nit ñi sonn nañ ndax ndox mi ñi dugg na seen biir kër ñi dugg na seen mbedd bi mootuñu jàll mu ne kon yëkkati na ñaar million joxe ko ngir tàmbalee ko nag da ko tàmbalee rek dox ndax juróomi téeméeri million sax la waroon génne loolu la waxoon dama juróomi téeméeri million wala milliard laa war a génne sax joxe ko tàmbalee ko waaye ginnaaw bi ñu ko waxee ne ko na tàmbali rek fu ñu toll mu tollu fa ak ñun mu ne kon na joxe ñaar téeméer million bi mu ko génnee itam ngir bëgg ñu ñu tàmbalee ko ndimbal teg ko nag ci ñetti daayira yu mag yi nga xam ne ñëpp xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi ñu boole ñetti kuréel yëpp nag mu nekk leen ñoom ñu ñu ñu waxtaan seen bi ba tënk ko sëñ moom joxe na xaalis bu noppi waaye ginnaaw bu loolu jàll nag ñuy soññ bokkitaal bi murid yëpp. ak képp ku bëgg lu baax te man cee jëf dara lu néew néew bu mu ci xeeb dara bu mu ci yëm dara ndax euh, lottu nit ñi moo toll foofu te nit ñi kat hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alimin tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum kon jihaad ci sa jëmm ak sa àll dara ëpp doole kon sëriñ bi naan ne mi ngi jege taalibe yëpp lépp loo leen waaye mën a dimbale na ko def.